ci touru IBS société bu nga produit Coca-Cola ak Minute Med Sénégal dama am Dadia akien ak yéen tey ci mairie de la commune de Diamniadio mo bëggoon monsieur le maire Mamadou Moulay kei ci terre lu nga xamé daf ñu terre tey suñu anda ak commune de Diamniadio mital buy dëgëral teranga Sénégal nawet bi moom am naa ay jafe-jafe moo tax ñu ñëw jox juróom benn motopompe boo leen dajalee motopompe yi mu neen xëcc ci juróom ñett million litre bis bu nekk maanaam dañu am doole torop lii dina mun dimbali commune de Diam Niadio Nawedbi. nawet bi bu fekkee ne nar mosol ci loolu ma société yu nekk ci suñu commune na anda nenyep ñëpp pour ñu mune faj lépp lu nga commune daf ko soxla. wax dëgg yàlla képp

ban bo xamni bi ndox mi ci kaw rek lay tag du infiltré wu du dugg donc il faut que ñu am possibilité souvent diko diko dindi diko évacuer diko ko fenen kon tay ji ñom duñu xalaté lolu andil nu juroom ben moto pompe yo xamni nak du yu ndaw parce que puissance ay millions de mètres cubes bu la wax donc koku duñ def lu ci sante ci yalla di len ci gëreum bu baaxa baax puisque ñom woné na ni ñi ngi jam ñaajo wane nañu li nga xamni li mom lañu wara def jëmele ko ci population yi ñi commencé nañ ko ci anam bu rafet rafet en tout cas ñom du fekkoon ni ñëpp def nañu li nu def ñaata entreprise ñoo fi am bari na lool a jam ñaa a jam ñaajo du kenn ku nek defoon touti rek ci li nga xam ne moom la ko yàlla dénk ci possibilité ci moyen yaakaar naa ni nun euh, institut euh, mairie bi municipalité bi jafe-jafe yu bari day wàññeeku mm-hmm. loolu tax dina lay gërëm di la sant ci turu équipe municipale yi ci turu population yi euh, ci li nga def rafet bi dafa rafet lool puisque naan ci lu ma lay neex bu baxee xeeñ kon nar naa neex baax na xeeñ na les populations de Diamniadio ne vont jamais plus oublier IBS vive IBS merci beaucoup